njàqare gu métti goo xamee ne dal na ci kaw commerçant yi nga xamee ne ñoo ne ci marché Ocass bi ginnaaw nag ak lakk gu métti goo xamee ne moom lañ fi nemmeeku ni ki bërki démb ci guddi ba yàq fi lu bëri loolee nag jural na leen naqar ak tiis wu métti tax na tamit sëriñ bi di ci gën a indi ay leeral di ñu xamal ne ñeenti place am yoo xamee ne jot naa lakk ba jeex. lakk de métti na trop wax dëgg yàlla ndax fii li fi yàqu moom mënuñ koo xayma bëri na lool wax dëgg yàlla bëri na lool bëri lool ay millions fi yàqu yu bëri sax ak sama depp dara génnu ci lépp a yàqu ay deux heures daal laa yëg waaw ba ko jëlee itam jël nañ suñu oto ñëw ba agsi waaye fekk nañ marché bi yëpp jàpp mënuñ ci dara dañoo arriéraat taxaw di xool muy lakk ba jeex wax dëgg yàlla dara génnul ñoom dara génnul li may lakkale moom mënu ma koo xayma ëpp na 20 millions di dem yàlla seere na loolu ëpp na koy dem moom ñeenti place yëpp ñaari yu mag la ak ak ñaari yu ndaw ak benn depp bu mag ñaari depp yu mag. yoo xam ne place ñu ngi woon ci fii mu ngi ci buntu centre Massamba Dieye bi ak Cheikh Sow ñaar nga Cheikh Sow ak centre bi benn ak fii fii ñaar fii ñaar moo fi ne ñenn ñi tamit jàpp ne tamit Senelec am na ci seen part de responsable ngir xoolaat tamit installation yi nga xam si ne moom la ñuy def ci marché bi. démb avant euh, courant bi kii bi di lakk marché bi de lakk. fii nii dañ doon commencé euh, di euh, délestage dafay amoon danoon day xëy kamaj di takk di fay di tàkk fay bi demee ba ci guddi gi xam naa ne ci la affaire yi am benn masse ci la jógee. Ah, waaw ci bëccëg gi. 30 minutes courant bi day dem ñëwaat wala par quinze minutes courant bi dem ñëwaat avant ci guddi gi état bi war naa gestuwaat waa Touba économie Sénégal buñ ko dee wax sun ko diviser 3 benn bi Touba bi lay génnee. ndax ay commerçant ñoo fi nekk li ñuy dugal ci réew mi suñ bu doon 50 pour cent la 30 pour cent yi wala 25 pour cent yi danañ ko dugal ñun waa Touba dañuy fay ay taxes kon taxes yooyu ñuy fay dañ ko war a delloo marché bi war nañ fee teg sapeur sapeur pompier boo xam ne nii baas lay nekk saa buñ leen woowee ñu mën a ñëw fii ñu def fi ay régol yoo xam ne nii saa bu fi musiba amee ñu mën a ubbi régol yi fay ko ci mu teel am na loo xam ne su fi jotee am néew ma takk tàkk du am de waaye saa bu fi tàkk-tàkk amee danañ ko teel a fay te bagage bu bëri dootu fi yàq loolu laa ci amoon lu may wax. sëriñ bi moom di wane na xaram ci kàddu yu tuuma yoo xam ne ñoo ngi koy yëkkati di ko teg ci kaw commerçant yi di xam leen tamit dañ dul joxe asaka. nit ñi war nañoo bàyyi leen démb da ngay dégg ay nit suñu borom teg leen natt ñuy ay jullit comme yow ngay ñëw di wax ay kàddu yu ñaaw yoo xam ne naan dañ waa marché ga dañ du génne asaka loolu loolu baat bu ñaaw la loolu xol bu kiñaan rek moo koy wax gis nga gis bu fekkoon dënn bii mooy te marché bi lakk man sama place du lakk. bari na fi ñoo xam ne si bu fekkee des nga mbaax fam daan am ba léegi mi ngi fi am mbon it kasaalika xol bu ñaan na xam naa ne bànqaas la bu yàlla di saxaal ci xol dara gënta ñaaw sa mbokkum julli sa mbokkum taalibe ah ngay ngay dara dal ko masa wuwo ko di xa wax naan naan dañ dul génn asaka loolu jëf ju ñaaw la lu ñuy naqarlu la man mbir mi loolu rek laa ci naqarlu man li xew sant naaj yàlla bu baax a baax a baax xam naa ne ngëneel la coobare suñu borom la jum wàcce ci ñun te nangu nañ ko lool ndax ay julli lañ ay taalibe sëñ Tuubaa lañ ci dëkk bi fi lañ juddoo fi lañ yaroo luñ amit fi lañ ko amee lu ñu fi dalit sant nañ ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax mu nekk nag mbir mu doy moo xamee ne métti na dal ci kaw commercant yi nga xamee ne ñoo ne ci marché ocas bu Touba tax tamit ñuy taxaw di tàllal seen loxo état bu Sénégal ngir mu jàppalewaat leen ba ñu mën a taxawalaat seen place yooyu